yéen a ngi topp ci xibaar 24 TV tey jii nag euh, ñoo ngi ñëwaat comme ni nga koy faral di defee ci wàllub euh, dimbalanteeg social ñu ngi jàkkaarloog euh, soxna si bàyyi ko ba Diourbel ñëw fii nag ci Mbacké suñu siège ngir soumettre ñu benn cas ñu mën ko jàllale ci grand public bi comme ni ñu koy faral defee kii doomam tudd ci Sidi Gueye moom nag dafa amee feebaru xol cardiaque xale la teel nañ ko nag xam teel ko signalé teel def ay démarches dem nañu partout fi nga xamante ni foofu lañ ko war a faje lu si mel ni nag hôpital bii di hôpital euh, Fann mais foofu en fait euh, dañ leen wax ni leen pour ñu faj ko il faut nga am benn somme somme boobu nag moo ngi ni ñu jàkkaar loolu toll si trois millions cinq cent mille francs njaboot gi nag xaw a néew doole bëggoon ku leen si jàppale moo waral ñuy woote wàllu si mbooleem ku yeewoo si réew mi doon bonne volonté àdduna wërngal këpp rek nga mën leen jàppale tey jii nag ñoo ngi nekk euh, waajuru euh, Sidi Gueye ñu fas seeni ko laaj mu wax ak ñun si jàngoro ji nu mu ko nemmeekoo kenn la ko dal ak tamit Sidi lu muy yëg ak yan démarche lañ si def soxna si tur bi naka la. man Ndiaye Mbaye laa tudd. voilà foo foo foo foo bàyyi ko. njaareem laa bàyyeekoo. très bien euh, la moo nekkoon say tànk. bëgg ku ma dimbale sama feebaru doom bi ndax feebar bi dafa yàgg ci moom dafa dem ba xale bi dafa sonn jàngeetut da doon jàngi école mais léegi jàngeetut ndax bu jàngee bu wàccee day sonn guddi gi day fatt dem na ba mënta lekk dara ndax lu mu lekk da koy da koy wàccu instant bi ruy rek lay naan guddi bi ruy rek lay lekk sa bu guddi bu tëddee day fatt damay jël karité di ko diwul si yaram bi di ko bës ndax mu mën a nelaw léegi ma bëgg ma ci dimbale sa yàlla rek tax. moom ñaata at la am. moom am na treize ans fukk ak ñett ñett la am. lan la ñu wax ni moom moo ko yor. cardiaque moo ko dal problème mu cardiaque la hôpital Fann lay fajoo léegi 3 millions 500 lañ ma laaj ñu ne mu indi ko ñu faj xale bi. yéen nan ngeen nemmeekoo ni moom dafa amee feebar boobu. moom guddi gi su tëddoon da daan fat di nooyu nooy bu baax di nooyu nooyu bu baax léegi loolu lañ dem ba ba xam ko ñu xam ne xale bi dafa feebar ñu dispensaire lañ ko njëkk a yóbbu bu njaareem ñoom biñ ko xoolee ñu léegi ñu tegtal ñu fee hôpital bu bu njaareem hôpital lukki bu njaareem léegi ñooñ nag ñoom ñooñu ñoom ñu buñ léegi éco lañ ko njëkk a defar foofu éco bi ñu ngi fay 25000 ñu defar ko éco ba pare éco bi génnee ñu ne kii directement Fann waa Fann ñoom ñoo ko mën a faj voilà boobaa ngeen commencé def ay démarches depuis ñaata at wala ñaata ñaata weer. am na ay at yàgg na jàpp ma ko nag mais biñ commencé dem hôpital Fann ba léegi yàgg na mat na at ay ati at. opération daal la war a subir ah? opération daal moo ci des. Hmm. opération bi daal fi ñu toll dencu leen dara dara dara. déedéet denc ñu dara ndax parce que man lu ma mën a dajale ba koy kii moom day jël ay ordonnance hmm. ordonnance yi dafa seer moom lay jël ñeenti façon comprimé la yooyu rek lay naan bu ko naanul affaire bi da koy daaneel da koy sonal lool mm-hmm. waaw. voilà euh, kon yaakaaru leen ko fenn aussi. man fu ma mën di yaakaar fu ma dem dañ naan photocopie kayit di indi ko bàyyi fi sa numéro téléphone fu nekk dem naa fu ma yaakaar dem naa mais loolu lañ may wax mais ba léegi dara sottiwut. Mm-hmm. ku si mel ni soxna si njiitu réew mi ngi def tamit lu baax am na tamit ay ONG yooyu xanaa nga profité yow ak yaayu doom ji nga woo leen ñu mën a jàpp si. waaw maa ngi woo ñëpp rek ku képp koo mën di dimbale ku ci mel ne Maram fay Sall Macky Sall njiitu réew mi képp koo mën a dimbale rek dégg sama kàddu gi rek maa ngi lay tàllal samay loxo di ñaan ngir yàlla sama doom faju ndax lépp loo mën di am sama doom faju moom moo ma ko gënal ba eggale njàngam ndax sonn na torop waaw. affaire da koy faral di jàpp di koy sonal. waaw instant bi moom doo koo sonal lool ndax su jógee su yeewoo tànk yi day bañ dama koy yëkkati. lu yàgg mu soog di dox di dem di soxlaam guddi gi bu tëddee du mën a nelaw day fat sonn na trop daal. Mm-hmm. encore une fois dafa amee feebaru boo xol ñu naan ko cardiaque duy faral di def ay crise yooyu wala. moom fatt bi daal moo ko sonal. Mm-hmm. fatt bi daal moom moo koy sonal guddi gi daal bu tëddee daal day fat mm-hmm. ba pare mu instant bi du mën a lekk daal lu mu lekk da koy da koy génnewaat. voilà mbokk yi kon kayit yaa ngi nii lépp luy analyse wala lu mës a def muy écho yooyu euh, yaa ngi indaale na ko euh, di sàkku nag ndimbal si tous les sénégalais ak toutes les sénégalaises ak tous les bonnes volontés de tous bords ONG association particulier acteurs sanitaires chefs religieux. moom daal mu ngi sàkku pour xale bi avenir am bii nga nekk en jeu ñu ko see jàppale bu fekkonte ni sax dafa doon loo xamante ni kenn mënu koo faj. waaye comme c'est possible kayit yaa ngi nii hôpital bi rek moom moo des nan ko dimbali xebuñ dara tey ku la bëggoon dimbali ba numéro ngay joxe. sama numéro téléphone 76 la 744 01 84 loolu mooy sama numéro ku ma bëgg a dimbale boo wootee si numéro boobu 744 01 84. 76 744 01 84. wala sa adresse man njaarim laa dëkk kër gu mag. Hmm. waaw ma foofu laa. ñëwee allah dinañ jokkoo ak yow. voilà instant yi ni kon jàngam dafa arrêté. instant bi ñaa mi dafa arrêté jàngeetul ndax bu demee école bu ñëw bu dikkee day sonn day fat madame si madame bi ko yore woon ma expliqué ko mun ne ma garaawul na bàyyi ba mu ndax loo mën di gis wér bi waa wér bi yaram gi moo moo war a njëkkee te xale yi ñoom buñ buñ génnee récréation dañuy nekk fii di bëreek yooyu sa loolu moom baaxul ci moom. te aussi opération bi mënul xaar tamit ah. opération yi moom instant bii loolu moo des fu nekk dem naa fa. ndax lu ñu gën a dem day gën a metti daal. lu mu gën a yàgg day gën a métti sa bi kayit di génne léegi yàgg na bërki démb rek maa ngi woon Dakar man ak moom ndax bët yi moo commencé woon di métti mais bi ma demee ba gis docteur bi def na maan sa normal ndax feebar bi dafa dem ba gañe ko hmm. opéré bi rek moo des loo mën di gaaw moo gën.